ñu Leewtoo TV jaajëfal na leen ñi ngi taxaw ak benn expert ba nga xamante ne bii kenn mënu koo génnee ci làmb ndax dafa yàgg topp xale yi am archive làmb yu bari nag muy Dembélé bu suñu làmb Dembélé maa ngi lay ziar. waa Mbaye Babacar maa ngi lay delloo ziar di kontaan ci yow di nuyu madame notre nouvelle dame xam nga di ko ne vraiment na la na la gën a fonk mu mu muñal la tamit xam ni liggéey bi moom parfois nga guddee wàcc parfois nga teel a wàcc mais lawan faroon rek macha allah. ma ñu waxtaan ci euh, Balla Gaye ak Boy Niang combat bu xaw a bëri coow ñu gis face à jot a def ban jàngat nga ci def. waaw man dama am contentement xam nga lu tax euh, bi ñoom Balla Gaye 2 Modou Lo Lac de Guiers buñ defee carrière bu nice defee carrière bu nice ñun dañu ne woon làmb pour mu neexaat il faut que ñu indi grand contre petit boo xoolee. préparer relève bi boo xoolee ren dugg nañu ci grand contre petit moo tax nag ñu am ay combats yu neex. Balla Gaye Boy Niang Ama Baldé Gris Bordeaux. waaw xam nga. Euh, ñu ngi wax tamit Siteu Lac de Guière. Siteu Lac de Guière ñu ngi koy tudd numéro 2. donc Boy Niang derby la Pikine Géejawaay Boy Niang nekk xale bi nga xamante ne bi mu duggee ci làmb moom objectif te yaakaar ni lu papam amul ci làmb ji moom moo ko war a réaliser pour coono bi mu daj ci làmb ji mu fàtteeloo ko bu mu duggee géejawaay yàlla def mu def ay victoire si mbër géejawaay ki mel ni ki mel ni Ekon ku mel ni Les 2 ni mel kajoor Sakajor ku mel ni Guy gi xam nga ba Lac de Guiers xaw ko freiné mais ba léegi nee na Balla la gën a soxla parce que moom mooy aliment de finition pour moom Balla def na lu nekk ci làmb ji daan na façon bu nekk ci làmb ji moom ak Modou seen jamono seen lu luñ ci def bokk na ci li gën a animé làmb bi mu daanee Yékini en 2012 pour man Balla Gaye si la commencé ker daan na fi champion bi nga xamante ne kenn mësu ko daan pour man si la commencé ker motivation yi mu amoon mu wàññeeku soo amee combat pour mu préparer ko ay weer dafay toog ay 2 mois 3 mois parfois sax du def ay contact pour man looloo waral tey dañoo jàpp ni dafa màgget dañoo jàpp ni dafa jeexal mais am na xale bu am ambition am na xale bu mën a bëree am na xale bi nga xamante ni mun na songu mun na défense. xale bu am lecture de combat bu am lecture de combat. Euh, Balla Gaye tamit am na lecture de combat gëm na boppam xam na ni bërekat la keroog gis naa signature contrat mu kontaan si Balla Boy Niang prouesse technique muy def parce que Balla Gaye la dafa bëgg a bërekat. comme xam na ni booy bi bërekat la mu ne dama bëgg mbapat donc combat la bi nga xamante ni yaakaar naa ni euh, amateur yi nañ kontaan bu fekkente ni booy Niang décidé na pour bëree bu fekkente ni Balla Gaye décidé na pour bëlee dinañ gis combat bu mais en tout cas Balla am na expérience am na fit euh, am na kattan aussi parce que loolu si seen si seen dërët la si seen papp la Boy Niang aussi lu mu liggéey tey moo ko may euh, état physique bu mu am yaakaar naa ni dinañ am combat bu neex euh, ku si juum tamit euh, parce que lamb ñaari bërikat bu ñu tasee bu amee ku si juum rek sa sa morom da koy exploité xam naa looloo tañuy naan lamb ku juum daanu donc combat bi nga xamante ni dinañ ci am contenté si ñu gis face à si ñu def mel ni Balla daf ko daf ko bàyyee coow li wala min doon gis muy muy tàngal ci ay ci ay face à face mais bi yoon dañu gis mu mel ni dafa dafa dafa yen booy bi combat bi. daf koy daf ko bàyyi combat bi premier signature. mais deuxième bi mënu ko. parce que tàmmu ko tàmmu ko c'est pas de sa nature. même Boy Niang buñ ko indilee pour mu charger la xamoon naa ni Balla beneen signature dina ñëw dina tontu mais en tant que mbër bu am expérience tempéré na les ardeurs pour man Boy Niang warul bàyyi bala tempérer les ardeurs dafa war a continuer si aligné si lignée boobu indil ko combat euh, indil ko ay intensif fexe perturbé ko mais bala tamit euh, mësuma gis bala mu perturbé si combat parce que bala bu arbitre sifflé nu mu la munta xërtal si signature de contrat buy arbitre sifflé day tey day calculer boo yaakaaree li day day asaaloo kombaam mosu ko def si ay lambam mais combat bi nga xamante ni yaakaar naa ne Boy Niang moo war a wone li nga xamante ne ñu ngi koy xaar ci moom. Euh, parce que ñu ñoo bëgg ñun ñoo sàkk woon grand contre petit donc les petits là ki mel ni Ama Baldé Sa booy ñaa Niang Reug Reug dañoo war a wone lan moo tax ñu war a bëri ak grand yi jëlee leen fii. ñu bëri ñu bëri na Boy Niang fi mu toll nii fa la Balla Gaye toll woon ba muy bëri ak Yékini. waaw mais contexte yi bokkul Balla bu muy bëreeg ba Yékini dafa dafa dafa enchaîné woon ay victoire amul défaite confiance bu mu amoon loolu gën na ko dooleel ci combat contre Yékini mais Boy Niang dafa ñàkk ci ñaari combat yi mujjee donc euh, pour man c'est vrai loolu la bëgg a wane ci bi li nga doon def sa say mag loolu laa woon tey mais booy Balla daf ci boolewaale confiance ba xam nga mbër booy daan. da ngay am confiance nga daan Tyson daan boo Baboy xam nga nga nar a song Yékini da ngay am confiance booy ñaan nag handicap bu mu am dafa am ñaari défaite donc dee bëree waale contre Balla dam ko bëgg daan mais dee bëree waale ñaari défaite bi nga xamante ni il faut que mu stopper l'hémorragie yi parce que ñu bëree nee nañu si poids lourd dafa échec maa ngi rectifier aussi que ni échec il n'a pas fait échec au niveau de tous les poids lourds parce que Boy Niang ba muy bëre contre Baye Mandione Baye Mandione poids lourd la il a plus de 100 kilos te manœuvré na ko daan na ko donc combat la bi nga xamante ne en tout cas Boy ñaa moo war a wone ci bëree ci xeex ci kattan ci doole. kon enjeu bi ci Boy Niang la ëppee. pour enjeu bi pour man ci Boy Niang la ëpp parce que Balla Gaye amatul dara lu muy prouver il a fait une carrière exceptionnelle donte bëgg na terminer en beauté sa carrière donc euh, Boy Niang les jeunes les jeunes amateurs ñun ñi nga xamante ne euh, bëgg nañu mag xale yi euh, wane dara pour ñu jëlee fi seen i mag dañuy mettre la pression sur les jeunes lutteurs ñu wane li nga xamante ne dañoo war a renouveler waat euh, lamb ji booy Niang bu échoué kenn du kontaan ki moom parce que dañ ko may chance Balla si sañoon du bëree moom. Euh, Ama Baldé Modou Lo da ko may sens daf ko war a wone boo xoolee l'état d'esprit de Ama Baldé dafay wax ni man may bëre man may def mu ne Gris doo laajuma la dara c'est moi qui dois tout faire Boy Niang comportement boobu la war a am si Balla Gaye moom moo war a def lépp bu nga ko may dara si combat bi. ñu dugg ci côté technique tuuti ñoom ñaar ñu daw ku ci nekk laal sa ngem bu morom. Euh, Boy Niang buy bëree en général du bëgg nga la jàpp nda euh, ngembam day bëgg moom mu jàpp sa ngemb. Balla ku ne xam na mbërëntaan la. Balla Gaye mbërëntaan la dafa bëgg jàpp Balla boo xoolee ay combat yi bëree day encaissé coup parce que moom dans sa tête dafa ne su ma encaissé wul coup du ma jàpp moo tax général day encaissé coup donc ñemee na coup mais bëree la gën a bëgg bëreekat la doomu mbër la bëreekat la mbapat na mbapat bu nekk Boy Niang bërekat la mun na bëre mais su sañoon booy bëre ak moom boo bu jàpp ngemboom loola tax buy jàpp bu la jàppee day manœuvrer rapidement mu daan la si ay secondes champion la bu mën a bëre champion la bu mën a calculer champion la bi nga xam ne il est trop tactique mais avantage booy ñaa moom mooy que dafa gaaw si ay action Boy Niang mën na la daal ay 5 secondes enchaîner ay action comme li Balla Gaye daan def bu ñu revisiter le combat de Boy Niang contre Brise de Mer c' était le meilleur combat la saison année boobu noonu yaakaar naa 2009 2010. voilà les meilleurs combats de Balla Gaye 2 mooy bu muy def ay enchaînement d' action contre Ousmane Diop. Ousmane Diop rotation ba rotation ba mu dellu la juróom-ñaar yi. doy champion bi nga xamante ne il a beaucoup mais Boy Niang moo war a wone li nga xamante ne ñun journaliste yi imposé nañu grand contre petit. na xale yi prouver que ni am nañu maakaama am nañu argument pour mën a bëre ak ak. ñoom ñaar seen état de forme.